boo xamante ni am na fi mooy cité religieuse mais li ci solo li ñuy wax tey fii mooy Cambérène mën naa ni am na plus de dix mille sympathisants de Pastef tey élection bii jàll am nañ plus de dix mille voix donc kon fii nii tey lépp lu ñu fi war a mën a def dañu ci war a concerté wu tey ñu dem ci élection législative lan la ñuy dénoncé fii mooy lan pourquoi vingt-trois candidats à la candidature ci Pastef Cambérène am nañ droit déposé loolu la lool la suñu coordonnateur wax dépose dépose ku am ku bëgg déposé na déposé ñëpp a déposer nañ muy 23 léegi pourquoi bi ñu demee ba réunion bi am le 21 septembre la le coordonnateur Boubacar Diallo ak lu fa mën a xew sax mais na def compte rendu ni lii ak lii moo fa xew pourquoi yeneen coordonnateur yi bi ñu demee seen commune def nañ compte rendu jusqu'à présent la lan mën a wax. que ici à Cambérène suñu coordonnateur amul kenn ku mu defal compte rendu même ci 23 candidats à la candidature yi loolu du dëgg du yoon ñun loolu la ñuy dénoncé Cambérène nag ñun ñii ñëpp li comme ni ko Assane Kébé waxee léegi ñun ay député la ñu Cambérène ñun ñoo war a mën a xeexal Cambérène waxal Cambérène Cambérène nag képp ku fi bëgg a jiite li nga war a def mooy lan respecter réalité dëkk bi jiital intérêt dëkk bi mais pas intérêt sa bopp yéene nañ ku nekk mu nekk député mm-hmm. mais tey képp kuy nekk député si turu Cambérène lu li li ngay njëkk a def avant sax ngay candidaté mais nga concerté wu xam réalité Cambérène xam tey fii yan problème lan ñoom Cambérène tey li ëpp solo mooy le problème d'assainissement kan mooy taxaw di ko wax la Fatou Ba nekkoon na député mais est-ce que mos nañ dégg mu taxaw wax ci euh, assainissement Cambérène Cambérène tey jii ñëpp am na lu leen metti ndax assainissement bi am na ñoo xamante ni tey bi assainissement bi di jàll dañoo arrêté woon seen fossé yëpp am na ñoo xam sax li gën a li ma gën a metti mooy koo xamante ne doon tabax këram ñu ni ka assainissement mi ngi jàll jarul ngay def fosse bu mag mu def fosse bu tuuti mais presque chaque semaine dina woo ku koy vider deux fois Cambérène sonn nan léegi tey boo fi bëggee nekk député nga ni doo concerté waa Cambérène ça veut dire que y problème ëllëg boo nekkee député représenté wala téye flambo de Cambérène doo refléter euh, les les les mots de Cambérène kon ñun liñ fi li ñu fi jot li li ñuy fi téye mooy que ni ñun dañuy dénoncer pratique yi fi am mooy le coordonnateur lépp lu mu war a def da ci war a def en tout transparence jub jubal jubbante lan woote donc lép lu luñ fi war a def fii nii dafa war a ànd ci transparence ñun ñii nii ñëpp amuñu fi kenn koo xamante ni dafay def guerre de positionnement ndax bi ñuy dugal ci Pastef postu taxul wala ay intérêt personnel taxul intérêt commune moo ñu moo ñu dugal ci Pastef te balaa ngay wax don de soi pour la patrie nga wax don de soi pour sa propre communauté wala pour sa commune ñun nag ñi fi teew nag bëgg nañ lépp loo xamante ni day am fii Pastef Cambérène mu leer wasalaam jërëjëf